ku ami borom julli daal dafa war dagg yitteem yëpp yëpp taxaw temm ci fay ko sax mu ne fawran mooy sépp soxla soo xam ne mën naa ñàkk rek muy soxla si àdduna da koy teg fee te jublu ci fay bari julli yam amee la mënta ñàkk nag ni ki amut lu mu def ci biiram di ko wuti mbaa lu mu jox njabootam di ko wuti wala waxtu wa muy toll ci lekk mbaa waxtu wa muy naan ak nelaw la mënta ñàkk ci sàmm wéru yaramam lu wees loolu daal na dagg yitte yépp di jëm ci fay borim amee ci julli moo xam dafa nekk ci tukki moo xam nekkul di tukki moo xam daa tawat moo xam daa wér fay bor itam sàkk luñ ko waxtu waxtu yépp mën nañ cee fay bor waaye nag bu ñu nee bu dee sikki sàkk julli sàngam julli woon na ko julliwu ko moom day jàpp lu gën a wóor ne julliwu ko woon waaye nag bu ko dee fay kon na ko fay ci waxtu woo xam ne ayuwuñ ca naafile ndax ndegam wóorul ba xam bor la bu gàll ci loosam am déet daa bëgg a def rek la gën a wóor kon na ko fayee ci waxtu woo xam ne ayewuñ ca naafile bala moo sottiku naafile ci waxtu wuñ ko aaye woon su ko wóoree ne am na ak julli ci julli farata yi goo xam ne julliwu ko woon da xamut kay gan la ca ñoom ay wóor na ko ne moom am na julli farata goo xam ne julli woo ko woon xam ne jëmm jëla sikki sàkka waaye ñàkkaa julli genn ci ñoom moom wóor na ko kon faaw day julli juróomi julli yépp te dañ ko wax ne ko bul ko julli ci waxtu wuñ teree naafil la waxtu yépp a yem ci yooyu jamono la taxoon nag julli wutoon mën naa muy ngànt loo xam ne julli koy wàcc faaw mel ne ak ndof wala xëm wala jigéen ju amee woon baax wala mu amee woon dereti wasin wala fa waxtu tàmbalee ba fa waxtu jeexe amu fa woon lu mën a laabe ci wàllu ndox mbaa lu mën a diine bu waxtu jeex yooyu moom julli ga wàcc na ko te fay lu ko ca war li wax li kay mooy fay war na ca ndax benn moo ko tey julli ga raw ko mbaa tey ko waaye nelaw mbaa fàtte moo tax julli ga raw ko yooyu la wax ne faw na ko fay ku ko amee borub julli li fekk fayu ko du sañ a julli genn julli naafila ni ki bu dee jamonoy ramadan du sañ a bokk ci ñi naafila naafilay koor du sañ a julli yoor yoor du sañ a dawalal tisbaar mbaa takkusaan moom daal xeet naafila yooyu du ci sañ benn benn ndax lu mu nar a naafila na ko fayee bor ya lu may nag julli yi nga xam ne duñ farata waaye àgg nañ ci doon sunna wala ñaari rakkay fajar yi nga xamee ne heure yi bëtu la àggul ci sunna ak gannaaw julli sunna yi moo sës ci màgg wetar moom mboolem julli sunna yëpp moo ci gën a dëgër ci yoonu ak imaam Malik kon wetar moom na koy def tey jiital shafa shafa mooy ñaar ak yu jiitu wetar jullik korite ak jullik tabaski ak jullik muuru jant ak jullik mbaaw ba tey na leen di def jullit muuru weer dañ caa wuute ndax lu ñu sopp la wala àgg na ci sunna boo ko boolee ci sunna yi kon moom it dana ko sañ a def waaye lu bokk te yii rek ci xeet naafile yi na ko bàyyi te taxaw temm ci fay bor ya kon bu ñu tolloo ci jamonoy ramadan gii te nga gis ne yow kàllafe nga da ngay seet ba nga kàllafeeg léegi ndax am na waxtu woo xam ne daa woo julleem déet wala am na waxtu woo xam ne na nga daan jullee seetlu nga ne baaxutoon boo xamee na jullee toll woon nga fay leen ñoom ñëpp su fekkee xamoo nañ toll woon nag ngay fay di fay ba jàpp ne daal la nga amoon ci bor tolluwut noona daañu sopp nag nga tàmbalee julli tisbaar waaye koo tàmbalee rek mu baax defe naa loolu dégg nañ ko lu bare bari yaari julli amul bokkaale ci waxtu mooy tisbaar ak takkusaan ci wet ak timis ak gee ci wet te waxoon nañ ci gannaaw nañ mën a bokke waxtu ñoom li fekk xaj nañ ci waxtu rek mëneesu leen a ñàkk tegale tisbaar jiitu takkusaan timis jiitu gee boo leen doon fay sax mbaa ñu dem ba xajatul ci seen waxtu moom day daal di mel ne jullee ci des nga xam ne tegale ko war na waaye soo ko bàyyee itam da ngay am bàkkaar rek bu tee la nga def baax waaye li fekk xaj nañ ci waxtu moom day war nga jiital tisbaar mujjee takkusaan jiital timis mujjee gee boo ko deful rek boo njëkkee julli takkusaan du baax boo njëkkee julli gee itam du baax ci kaw nag li wax fàttewoo ko te bu fekkee da nga koo fàtte woon ba julli takkusaan ba sëlmal doo fàttaliku ni julli woon tisbaar ba it takkusaan ja baax na dañuy sopp rek boo jullee tisbaar ba àggal nga baamuwaat takkusaan ndax mu sës ci moom ba tey boo julli woon gee ba sëlmal doo fàttaliku ni julli woon timis it mbaa timis ji yàqu woon na it gee gi baax na ndax fàttee tax nga jiital ko daañu sopp rek boo noppee ci timis ja nga baamuwaat gee li fekk waxtu way jeex ndax ñu sësaloo ñoom ñaar bu amee julli la raw amul sax genn gu teew waaye am na julli la raw yoo xam ne ëpp na genn moo xam ñaar la mbaa ñett mbaa ñeent faaw rek la war a mooy nga tegale leen nga jiitu jiitu nga ca topp topp ca niki bu fekkee ne démb ba tey julliwoo tisbaar takkusaan timis gee mën nga cee boole suba ndax wax ji gën a wóor mooy julli yéen néew taraw la dañ leen di jàppe juróom ñeent moom ñëpp mas na ci ne néew na juróom la ñu wutee ci waxam daa néew am daa bari waaye moom mi jàngale fii moom da koo boole ci néew ga boolewu ko ca bari ga kon fekkoon ne waxtu yi nu toll tisbaar jotugut nga seetlu ne démb ba léegi julliwoo tisbaar takkusaan timis gee suba day war nga tegale leen noonu ñu tegaloo njëkkee tisbaar teg ca takkusaan teg ca timis teg ca gee mujj suba soo deful noonu rek dana baax waaye da nga am bàkkaar ndax tegale yooyu warugar la boo ko deful am bàkkaar waaye nekkul charte maanaam ñàkk gaa def du tee julli gaa baax kon fu amee julli koo xam ne yaa ngi ci waxtoom rawagu la nga amee bor yoo xam ne dafa tàmbalee juróom jëm suuf rek waaye ëppul juróom kon day war nga jiital boori julli ya ba ak si gi nga xam ne yaa ngi ci waxtoom door koo julli bu la wóoroon ne sax boo dee fay yooyee bala nga ak si ci gi moom itam fekk mu raw la it la war rek mooy nga jiital ya jiitu ba ak si gi nga xam ne yaa ngi ci waxtoom door koo julli loolu nag waru gar la woo xam ne soo ko bàyyee am bakkaar waaye boo ko teyee julli ki teew fi saasa loolu fay ci gannaaw it du ko tee baax bakkaar rek ngay amee ca ñàkk gaa tegale lii la wax la ne boo ko defut njëkk julli nga nga nekk ci waxtoom door a fay yàlla raw te bariwuñu kon boo fay yooyee nga xam ne ñoo la rawoon daa ñu sopp nga baamu googee nga julli woon fa saasa te nekkoon ci waxtoom te waxoon la nga yéexe ko jiitalee moom nga jiital ko daañu sopp nga baamu ko li feeg waxtu way jeex dañoo jëlee li muxtaar mi waaye li feeg daroor yi jeex daañu sopp nga baamu ko tey ga nga ko tey du tee ñu digal la nga baamu xam ne foofu tey gi ak ñàkk gi tey ñooye moo doon du tee rek ñu sopp li feeg waxtu way jeex doonte daroor yi waa nga baamu ca julli goo gi nga xam ne yaa nga woon ci waxtoom njëkk ko julli te fekk fayagoo yàlla raw te fekk ñu néew nga leeral nag bu fekkoon ne dafa am julli gu teew nga nekk ci waxtoom yow nag say bori julli moom ëpp juróom juróom benn jëm kaw kon bu fekkee ne boo fi dee fay bor yooyee da nga fekk gi nga xam ne ci nga toll woon moom itam raw la ne yooyee kon day war nga jiital gi teew bala mu laa raw door a julli nag bor ba ca gannaaw te bari su fekkee ne nag waxtu wa yaatu na yaatu goo xam ne mën ngaa julli la raw ba as ci gi teew door koo def kon dañuy sopp rek nga jiital gi nga nekk ci waxtoom def ko ba noppi door a dem ca yu bari yee ci gannaaw waaye dëgg waxtu wi yaatu na moom boo jiitaloon yu bari yee ci gannaaw ba agsi ci moom julli ko it dañ ca wax dara maanaam julli julli gi nga xam yaa ngi ci waxtoom moo xam yaa tey moo xam teyoo door a fay bor ya ko jiitu woon te bëriwuñ su ko ilimaan defoon te comme jiite moom muy maamoom loola dalu ko ndax kon kookee mu jiite daañu ko digal baa mu ci waxtu wala déet mel ne nga jiite ci jàkk ji tisbaar te fekk na boobu yaa ko tey xam nga ne julliwoo woon suba ñu wax la ne la boo ko teyee njëkk a julli tisbaar itam door julli suba du tee tisbaar ji baax waaye daañu sopp boo jullee soo ba noppi léegi waxtu tisbaar yi jeex nga baam ko da nga jiite jàkk ji na ñoom julli woon nañu suba li la dal dalu leen am nañu ne ñoom du aajowoo ñuy baamu maanaam dañu sopp ci ñoom ñu baamu am ñu ne ndegam yaa leen jiite rek te fekk loolu dal la da nga leen laalaale ba ñoom it daañu sopp ñu baamu ci waxtu wa wax ci gën a wóor na mooy ñoom dañu sopp ñu baamu ca waxtu wa bu fekkoon ne nag da ngaa nekk ci biir julli farat di ko julli door a fàttaliku ne am na genn julli gu raw baa yaar baa yett baa yent baa juróom yoo xam ne julli woo leen xam nga yaa ngi ci farata kon bu fekkee yow doom yaa àndoon di julli da ngay dagg julli googee daal di jiital bor ya ba agsi ci moom door koo julli ci kaw nag nga bañ yanu bàkkaar ndax tegale ga niñ ko waxe woon léegi mën na ñàkk te du tee julli gi baax soo ko defut da ngay gàddu bàkkaar ji bañ ngaa def rek waaye du tee julli ga baax su fekkoon ilimaan la loolu dal mel ni nga jiite ci jàkk ji tisbaar rek fàttaliku ne julli woo woon suba ak geexu biig mu yaar kon boo bañ am bàkkaar da ngay dagg tisbaar ji te su boobaa nag ñu nga doon jiite ñoom it dañu dagg di nangu kenn ci ñoom àggale julli boppam di nangu kenn jiite ñu àggale boo daggee rek ñoom it dañuy dagg bu fekkee dëggoo nag yooyu da nga am bàkkaar ci ñàkk gaa tegale waaye du tee julli ga baax ñoom it kon du tee seen julli baax daañu sopp dafay waxtu way jeex nga baamu julli ga gannaaw ba nga jiitalee la war a jiitu ba àggal soo nekkee di julli farata fàttaliku genn julli mbaa yaar mbaa yett mbaa yeent mbaa juróom yoo xam ne julli woo leen dañ wax ne boo bañee bàkkaar da ngay dagg gi nga nekk dem julli yooyee ba agsi ci moom door koo julli loolu la ne su fekkee julli gi amoon nga ci benn rakk bu ma sëkk ba sujjóot ñaari sujjóot ña dañu taamu ndegam waxtu wa yaatu na nga dolli ca beneen rakka muy ñaar bu doon julli suba itam nga am ca benn rakka fàttaliku ne jullee woon gee biig daañu sopp rek nga teg ci benn muy ñaar muy ak naafi la nga dem jiital gee door a ñëw ci suba day mel ne kon lañ aaye woon ci naafi la gannaaw fajar fenkee li nga def moom la waaye lu tee rek loolaa nu gënal bu doon jiitu jumaa itam ilimaan bu doon jiitu jumaa fàttaliku ne julli wutoon suba mbaa julli suba ga dafa yàqu woon dañ koy wax ne ko soo bañee bàkkaar bi daggal su daggee maamu yu faaw dañuy dagg kooku la ne nag bu fekkoon ne julli jumaa ga am na ca benn rakk bu mat sëkk dañuy bëgg mu teg ci benn muy ñaar mu def ko naafi la mu door a fay nag julli suba ba noppi door a julli julli jumaa ga bu fekkee ni mu ko doon xaar bi ngay fàttaliku ne amee nga ay bari julli yoo xam ne bariwuñ julli farata bi nga nekkoon di ko julli julli woon nga la ëpp ci rakkaam mel ne bu fekkee timis la da ngaa julli ñaari rakkaam ba àggal door a fàttaliku ne julli woo woon takkusaan wala bu doon geneen ci julli yu nekk ñeenti rakka nga julli ñettee ba noppi door a fàttaliku ne julli woo woon nga jiitu mel ne muy tisbaar nga julli ba am ca ñetti rakka yu mat door a fàttaliku ne suba ma ko jégg julli woo ko woon ndegam lépp ci rakka yu julli gi julli nga ko da ngay jàll rek mottali ko def ko muy sa farata ñu sopp nag gannaaw boo julli suba ba noppi nga baamuwaat tisbaar mii ndegam julli gi daal moom lépp ci rakkaam def nga ko ba àggal door a fàttaliku ne julli woo nga ko jiitu woon bàyyi ko jiitoon te bariwuñu da ngay àggale def ko muy sa farata dara sikku ca du tee ñu sopp nag boo fayee la nga war a fay nga baamuwaat ko ndax mu sës ca fa mu war a sës kon mën ngaa takk foofu ne boo dee julli jullik farata ba ci biir nga fàttaliku ne julli nga ko jiitoon mbaa ya ko jiitoon te néew julliwoo leen julli gu mën doon ci julli farata yi soo ci xasee am benn rakk dong ñu sopp nga tollanti ko beneen muy ñaar mu di naafila door a jiital la jiitu baax si ci moom mii war koo def moo xam nag julli googa day suba mbaa day julli ajjuma mbaa day geneen loolu yépp ci yem julli goo xam ne dama ëpp ci rakkaam xas na ñëw nga door a fàttaliku boo julliwutoon ca gannaaw ñu ci timis dem nga ba def ca ñaar mu des benn rawante na nag julli suba ak julli jumaa ñoom ñaar dong lañu nga xas leen defal ñaar yooyu yëpp bu dee timis jaar da ngay jàll àggale ko te jàpp ne mooy sa farata dara sikku ca bu dee jullik suba wala jullik ajjuma nga xam ne ñaari ràkk lañu da ngay jàll rek àggale leen taaye sëlmal ñuy say farata dara sikku ca ñu sopp nag boo defee la nga fàttaliku noppi nag nga baamuwaat leen ci waxtu wa mboole julli ñeent ràkk yi itam goo ci doon julli ba am ci ñett ba àggal door a fàttaliku ne war nga koo tegaleeg nga ko jiitu mbaa ko jiitu it wóyul rek àggale ko muy sa farata ndax ndegam li ëpp ci ràkkaam ñëw na dañuy jox la ëpp àtte ba bàyyi la gën a néew xëy na kon xamaali nga ci ne julli timis ñett rakka dong la soo doon julli timis ba def ñetti rakkaam door a fàttaliku ne julli woo takkusaan it da nga yooyu rek àggale ko muy sa timis julli guñ la ne la ëpp ci rakkaam xam nga ko julli àggale ko muy sa farata boo ko àggalee ba noppi boo jiitalee jiitu rek ñu sopp moom it nga baamu ko ndax mu tegu ci ñoom na mu yelle kama moom it mutu la xam day wane ne su fekkoon ne ilimaan lii dalu ko maa moom kay moo ànd ak ilimaan di julli ba ci biir mu fàttaliku ne julli nga jiitoon gii julliwu ko woon ba yàqu woon na mel ne nga ànd ak ilimaan ci jàkka ji ngeen di julli tisbaar ba nga nekkee ba ci biir tisbaar nga fàttaliku ne julli woon suba ndegam yow maa moom nga da ngay yëy rek ndax ilimaan yeew na la bul bàyyi da ngay ànd ak moom wéyee la tisbaar ja tey tisbaar ja baax na suñu sëlmalee nag ba nga fay suba ba noppi ñu sopp nga baamuwaat nag tisbaar jooju xam ne daal jàpp ne lii moom bu dalee maa moom mooy ànd ak koy jiite ba ci biir mu fàttaliku ne julli nga jiitu woon gii julliwu ko woon ba yàqu woon na bu mu tax mu dagg day wéy rek te julli ga baax na bu noppee nag ba fay bor ba ñu taamu mu baamuwaat gii mu ànd na ilimaan nga xam ne bu ko daloon ci julli jumaa mu ànd na ilimaan julli jumaa gi ba ci biir mu fàttaliku ne julli wut suba ko it day rekk ci julli jumaa ga baax na dara sikku ca muy sëlmalee mu daal di fay julli suba ga ñu sopp nag bu fekkee am na beneen jumaa bu mën a dem baamu ca mu baamu kon julli jumaa ga bu fekkee amul beneen jumaa mu baamuwaat tisbaar li mu waxoon léegi mooy nga doon julli julli farata fàttaliku boru julli boo ko war a sësaleel day wax nag léegi nga doon julli julli naafila ba ci biir fàttaliku julli farata goo xam ne war nga koo julli naafila goo nga ne ko noo koy def mu ne fa nga koy war a dagge day te dem ca farata ja mooy su fekkee ne waxtu daa xat te amagoo ca naafila ga sax lu matum ràkka ndegam waxtu wa xat na te naafila ji nga tàmbali woon amoo ca sax benn rakka da nga dagg naafila gi daal di dem ca farata joojee gaaw def farata ci nga xam ne yaa ngi toll woon ci waxtoom bala mu laa raw moom itam mi ngi mel ni nga doon julli ñaari rakkay fajar kon xam nga moom du farata nga fàttaliku ne julli woon gee kon su fekkee ne da def sa digganteeg waxtu subay jeex daa yaatuwut nga xam ne jàpp nga ne boo fi dee àggale ñaar rakkay fajar yi bëgg a jiital nga jiitu muy gee door ceeteeg suba mii kon na nga fekk suba mii raw la kon day war nga dagg ñaar rakkay fajar ya daal di gaaw julli gee gaaw itam julli suba bi nga nekk ci waxtoom bala mu laa raw lu bokkute loolu nag nga xam ne waxtu wa yaatu na mbaa xas nga am ca naafila ga ab rakka da ngay àggale naafila ga ci lu war doora julli nag julli ko nga fàttaliku ba agsi ci nga teew daal di koy julli lu wóoree ne juróomi julli farata yi am na ci koo xam ne julliwoo ko xamatoo nag gan la ja xamatoo sax day genn ci yetti julli yi dëkk ci bëccëg bi te mooy suba tisbaar takkusaan wala day genn ci yaari julli ya dëkk ca guddi ga te muy timis ak gee kon nañ lay digal nga julli mboolem julli juróom ñu sopp nga tàmbalee tisbaar tegale ba julli suba suba baa gu mu ci mën doon rek ñëw na de bu la wóoroon ne julli farata moom raw na la waaye ja dëkk ci guddi ga benn la ja kon boo jullee timis ak gee rek mu daal doy ndax yaar yooyu rek lañ moomale guddi ko ne it genn julli farata dara raw wóor na le ne ci bëccëg la dëkk kon boo jullee suba tisbaar takkusaan rek mu daal doy ndax yett yooyu rek ñooy julli bëccëg yi mu ne su amoon julli goo xam ne xam nga ne julliwoo ko xamatoo gan la waaye soo ko xamoon dana la wóor ne nga sës ci moom moom itam julliwoo ko mbaa boog boo xamoon julliwoo ko da nga xam ne ba ko ñetteel itam ci boo tàmbalee ci moom di wàññi julliwoo ko mbaa boo ko xamoon dana la wóor ne nga ko ñeenteel it julliwoo ko mbaa soo xamoon dana la wóor ne nga ko juróomeel it julliwoo ko kon nooy def mu ne juróomi julli rek ngay julli doo ko def juróom benn borom muxtasar waxoon boo jullee juróomi julli rek mu doy na nga koy defee nag mooy sopp nañ nga tàmbalee tisbaar ndegam day julli ak nga sës ca moom da ngay njëkkee tisbaar te jàpp ne mooy du la njëkk a raw boo noppee sësale ci nga sës ci moom muy takkusaan jàpp ne kon julli nga nga xamutoon gan la tisbaar la te sësale nga ci takkusaan mu sës ci moom waaye nag boo toolee ci takkusaan tam na nga jàpp ne mooy julli gën a njëkkoon a raw bu ko defee nga teg ci timis mi ab ñaareelam ñu sësaloo ba tey ba àgg ci timis it da ngay jàpp ne mooy gën a njëkk a raw nga teg ci gee mu dit ñaareelam boo àggee ci gee itam jàpp ne kat yaa ngi koy ñaareele gee waaye moom itam mën naa am mooy gën a njëkk a raw bu ko defee nga teg ca suba suba ñaareel ko nga xam ne kon bu fekkee ne la nga umpale mooy jëm bi ab julli ak nga ko ñaareel moom ngay tàmbalee tisbaar te tisbaar mu ngay tàmbalee nga jàpp ne mooy jënd gi mu umpale woon te mu raw la nga jàpp ne kon takkusaan bi nga ci sësëbe mooy ñaareelam ba la rawoon te it nag bu àggee ci takkusaan moomee nga jàpp ne mooy gën a jëkk raw ndax nga mën caa sësëbe timis mu ñaareel ko bu àggee timis def noonu bu àggee gee def noonu boo noppee ci gee nag teg ci suba borom mu safar moom daa waxoon ne boo defee suba noonu nga jàpp ne suba mooy gal rawoon te xamoo ko nga bàmbuwaat tisbaar teg ci nag muy juróom benn waaye loolu sukkandikoo wuñ ko li sukkandikoo rek mooy li wax fii suba daal boo ci àggee yem ca du aajoo ngay bàmbuwaat tisbaar ja nga tàmbalee woon bu doon nag umpale ak julli ak nga ko ñetteel nga xam ne daal bu la wóoroon ne julli gii moom moom la dana la wóor ne nga ko ñetteel itam raw na la dañuy sopp kon nga tàmbalee tisbaar te jàpp ne tisbaar moomee mooy nga rawoon nga seet nga ko ñetteel nag te mooy timis nga daal ci sësale timis te nag ba àgg ci timis itam nga jàpp ne mooy julli nga rawoon te nga umpale ko nga seet nag timis gan moo ko ñetteel mooy suba bu àggee ci suba itam jàpp ne mooy jëmb julli ga la rawoon te nga umpale ko nga seet nga ko ñetteel nag te mooy takkusaan noonu nga koy toppee bu wër juróomi julli yi waaye doo weesu juróomi julli rek moom soo umpale woon itam jëmmi ak julli ak nga ko ñeenteel mbaa ak nga ko juróomeel atte bi benn la li ñu wax rek ngay def da ngay tàmbalee tisbaar te jàpp ne mooy jëmmi nga nga umpale woon te mu raw la nga seet nga ko ñeenteel nga sësale ko ca te googee itam boo koy julli nga jàpp ne mooy jëmmi ja nga umpale woon te mu raw la nga seet nga ko ñeenteel nga sësale ko ca bu yooyu nag ba nga matale julli juróom su doon jëmmi julli nga umpale ak nga ko juróomeel du àtte bi benn la rek da ngay tàmbalee tisbaar te jàpp ne mooy jëmmi julli nga umpale te mu raw la nga seet nag gan moo ko juróomeel ci boo tàmbalee ci moom di wàññi nga sësee ko ci moom bu àggee ci googee itam jàpp ne mooy jëmmi nga ko umpale woon seet nga ko juróomeel ci wàññi bi nga teg ko ca ba ba ngay àggale julli juróom su boobaa rek bu daal doy su fekkoon ne am na genn julli woo xam ne daal xam nga ne julli woo ko xamatoo ko waaye soo ko xamoon nag dana la wóor ne boo tàmbalee ci moom di wàññi nga ko juróom benneel itam rawoon na la julli woo ko woon mel ne su la wóoroon ne tisbaar la boo nee tisbaar takkusaan timis gee suba kon tisbaar yi bis ba ca topp moom itam kon na la wóor ne julli woo ko woon xam ne moom daal jëm julli ga soo ko xamoon dana la wóor ne ni mu rawee ci bis bi noonu dala rawaate ca bis ba ca topp ndax julli ak juróom benn la moom noonu lay doon ni ki bu la wóoroon ne takkusaan moo raw ci bis bi da nga mën dogu ne takkusaan ci bis ba ca topp it julli woo ko woon waaye nag taxatu nga mën dogu ci dala raw jëmm ja gan la borom ba tey julli ak nga ko fukkeel ak benneel at yëpp benn la boo bëggee rek mu tegaloo da ngay julli julli juróom yaari yoon bu la neexee tàmbalee tisbaar ba ci suba nga yenn yoon nga dellu baamuwaat tàmbalee waat tisbaar ba ci suba yaari yoon bu la neexee itam nag nga julli tisbaar daal di koy baamuwaat julli takkusaan daal koy baamuwaat julli timis baamuwaat ko julli gee baamuwaat ko julli suba baamuwaat ko kon loolu mooy boo jullee tisbaar jàpp ne mooy ga nga umpale woon nga dellu susiliwaat ca jeneen tisbaar jàpp ne mooy tisbaar yi ëllëg sa bu àggee takkusaan julli ko jàpp ne mooy jëmmi ga nga umpale woon te dal ci takkusaan nag jàpp ne mooy takkusaani bis ba toppoon ca boobee jàll ca timis ak geeg suba yëpp rek def noonu lee mu ne nag boo umpulee jëmmi julli koo xam ne soo ko xamoon ba ràññal ko dana la wóor ne julli nga ko fukki yële bennee li julli woo ko woon loolu li muy tekki mooy soo xamoon jëmmi julli googa da nga xam ne julli ga mu bokkal aw tuuf ca bisum ñetteel ba it julli woo ko woon loolu nag moom daa yem rek ci waxaadiyati xashrati hawaaye boo ko toppoon diwe ji ba ci waxaadiyati arbaaxiñaay du tax dara sotti ko ci atte bi benn la da ngay julli julli juróom yaari yoon ci kaw tàmbalee tisbaar teg ci takkusaan timis gee suba dellu defaataat ko mbaa boog nga def genn goo julli rek dellu ko baamuwaat ni ki tisbaar tegaat tisbaar takkusaan tegaat takkusaan muy wéy guddi ak bëccëg moom boo leen boolee am nañu juróomi julli waaye nag guddi ga ak bëccëg ba mën nañoo bañ a bokk benn bis bu dee ci lislaam boo dee tey julli dibéer bu jant bi sooy rek dibéer jeex na guddi nga nekk guddi altine la bëccëgu bi jëmit bëccëgu altine la yetti julli yu tegaloo wala yeenti julli yu tegaloo wala juróomi julli yu tegaloo ñoo la raw te xamoo leen ndax dañoo dëkk ci ak bëccëg ak guddi yoo xam ne bokkuñu benn bis bëccëg ba daa bokk ca bis bee guddi ga bokk ca beneen bis xamoo nag gan moo ci jëkk te moom ndegam ñoo tegaloo boo xamoon nga ci jëkk rek bu dee yettee nga daal di xam yaari ca topp bu doon yendee boo xamee nga jëkk daal di xam yettee ci topp bu doon juróom yi boo xamee nga ci jëkk rek daal di xam yentee ca topp nga bëgg nag loo jullee tegale ba nga xamee ne lépp ñëw na ca nañ ko diglee mu nekkoon na ngay julli rek julli juróom te tegale leen rek soo ko defee rek ak lu mën di am moom ñoom ñëpp ñëw nañu loolu dana wuuteeg la boroom muxtasar waxoon waaye lii lañu sukkandikoo bari na lool yu andi woon foofa jafeel ko boo dikkee fii mu gàtt te yomb la ko waral rek mooy li ñuy wax fii lañu sukkandikoo ndax moom da ko teg ci kaw tegal julli yooyu warugar la waaye du sart ca yurub julli ya kenn ak moom gannaaw ba mu nangoo ne tegale ga du sart warugar la at yi wax yépp da ko teg ci kaw sart la mënta ñàkk moo tax booy jàng muxtasar nga gis mu guddal lool te nga gis fi moom mu gàtt dayof ba jàpp li ko waral nag mooy loolu mën ngaa jàpp itam li nekk fii moom lañu sukkandikoo ndegam nag julli yëpp bëgg a fay xamut gan moo ci jëkk danañ sopp mu tàmbalee tisbaar ndax tisbaar moom la jibril jëkk a jiite yonante bi ci kaw suuf ba mu koy xamal waxtu julli yi fañ tàmbalee ak fan lañ yem moo tax bu ëppalee julli ya muy fay rek xamul gu muy tàmbalee ñu sopp mu tàmbalee ci tisbaar su fekkee xam na ga muy tàmbalee nag mu tàmbalee ci jëmmi googa la ñu waxoon ne mukallaf li fekk tàgguwut ak sagoom saa yu julli jotee rek da ko war a defe nam ko mane bañ koo xaare weneen waxtu lu mata jàpp la ndax bu ne damaa wéri di rek te naa bëgg a jullee mënuma ko tax mu yéexe julli ga dee ñu bindal ko ca bàkkaar yéexe julli ba waxtu wa jàll ci lu ngànt dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag te loolee moom dañ ko jàppee ngànt ndax dañ ko ne rek na nga mën a jullee jullee ko kon saa yu ko yéexee rek na xam ne ma nga yenu bàkkaar bu diis a diis te ndegam moom daa wéré di xamul ba xam dana wér ci wéré di googee am déet dem na ba sax ña nekkoon ca toolu xare ba doon jihaat ci yoonu yàlla may di leen ñu nekk ca jihaat ca ba àggal door a julli dañu leen a digal bu ñu amee sabas mën a def mbooloo ma ñaari xaaj ñee di xeex ñee di julli ci niñ ko jàngee ci yenn téere yi baax na suñ ko mënut kenn ku ne noo mën a jullee rek jullee ko moo xam da ngay dox moo xam da ngay daw moo xam yaa ngi war moo xam da ngay tànku moo xam mën ngaa jublu xibla moo xam mën laa jublu xibla waaye kenn ku ne daal li ko daal ànd sago rek jihaad ji muy xeex bi ci yoonu yàlla bu mu tee nga julli na nga mën a jullee loolu nag moo tax mu kàllaf mi war a farlu ci di bañ a yeexe julli ba waxtoo jàll ci dara dafay mu ngi ànd ak sagoom rek na fexe ba julli ci waxtu wa bu amee wérad itam ñàkk mën a laab mbaa yu demee noonu it na seet na mën a jullee rek mu jullee ko ca waxtu wa ñu jàpp bu baax itam ne koo xam ne daa tawat ba mënta taxaw taxawaay bu yàgge ne jàng faatiha du tax mu ne tëli na ma taxaw rek daldi julli toog day taxaw wax allahu akbar muy armal mu door a toog nag jàng faatiha bu ca saaree topp bu dee ci sàkk bu jóg ak bu ñaareel mu teg ca saar bu ca rukkoo rek desee nag bu jóg taxaw daldi bàyyi ko ca taxawaay ba sëgg rukkoo nga xam ne bu dee rukkoo day bàyyi ko ci taxawaay du bàyyi ko ci togaay ba dañuy bañ yàlla natoo ko muy rëddi ba mënta taxaw diir bu yàggee ni jàng faatiha mu defe ne kon mën naa daldi toog rek lépp julli ga day taxaw armal wax allahu akbar door ak suuf nag toog bu njàng ma jeexee bu jóg nag taxaw sëgg rukkoo nga xam ne rukkoo ba ci taxawaay lay bàyyi ko ba mu koy def jàll sujjóot nag bu ràkk boobu jeexee mu defati noonu ba julli ko jeex bañ a fàtte itam ne ku amee barub julli li fekk fayu ko du sañ a naafila jamono yi ñu tolloo ci weeru koor wi koo xam ne am nay bor bindee naafila moom nay nekk di fay bor yooyee mu amee ku ne nag day seet ba xam ba mu kàllafee ak léegi am na fi jamono yum daawul julli wala daana julli waaye am na lu teexoon julli ga baax léegi la ko xam te boobu xamu ko woon loolu lépp na taxaw ci fay ko bu tàyyeelee fay ga itam du tax ñu ne rek ndegam bu fayut day toog du def dara kon dana sañ a naafila du ko taxa saña naafila kàllafe nag dafa yomb ndax bu dee ci at yi moom bari nañu wax fukki at ak juróom bu dee nag ci yoonu Maalik moom dañuy wax fukk ak juróom ñett dafa am nag yeneen màndargay kàllafe yoo xam ne gis baax bu dee jigéen muy reegal da caa bokk te dafa mel ne léegi gone yu jigéen yi dañuy gaaw a gis baax boobu kon ku ci gis baax na daal di xam ne kon léegi kàllafe na lañu sant ñu am juróom fukki at ñoom juróom-ñaar fukk loola lañ ko sant tàmbali lañ ko bindal nag bàkkaar luñ ko sant te def ko mbaa ñu aaye ko mu def ko nañ séentu nag digganteem ak ka ko sañe digal ak aaye te mooy boroomam